jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante suñu borom ñi ngi julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa waaye di ñaanal suñu sëriñ suñu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla bi yàgg waaw ndax nag Sénégal yëpp benn bopp kilifa diine yëpp kilifa yi ñëpp na te maam Seydi Hadj Malick da daan wax naan sama njaboot ak sama taalibe bugguma ñu ràññeetle leen kon ñun njabootu maam Seydi Hadj Malick maa ngi nuyu ñëpp duma laaj kenn fanaanoo ndax képp kuy jigéen naqar nga fanaanoo du ma laaj kenn kuy góor lu fanaanoo ndax góor bu ne fii ci senegaal gàcce nga fanaanoo gàcce nga fanaanoo ndax dañoo toroxalaat jigéen gàcce nga fanaanoo ndax dañoo humilier jigéen gàcce nga fanaanoo ndax dañoo dóor jigéen boo xamante ni nii dafa tollu ci génte loolu nag mbéjum kanam la borom moo koy fajal boppam borom mooy ñan jigéen ñi d'abord borom mooy ñan jigéenu alliance pour la république d'abord waaye dañ ciy invité jigéenu Sénégal ñépp di ci invité ñi nga xamante ni nee nañ ñoo les premiers jalons pour que parité am assemblée nationale et j'interpelle directement ma cousine et ay Aïda Mbodj di interpeller ñi nga xamante ni nii ay jigéen nañu te Amy Ndiaye mi di séqal nag ñoom teraanga ku ci mel ni madame le premier ministre Aminata Touré démb dégguñu ko mu condamné li nga xam ne xew na assemblée nationale te Amy Ndiaye ñii bi moo ko teeru Kaffrine ba muy wut suffrage sénégalais yi foofu kon rafetoon na mu condamné loolu ñu ko def di wax ni dañuy lancer appel tey femme politique ñooy wax femme yi bokk ci état waxuñu dañuy lancer appel état lancer appel ministre de la justice ndax les faits sont sacrés et les faits se sont déroulés devant lui di wax ni moom mooy ministre de la justice mbir mi ci kanamam la xewee et c'était devant l'opinion nationale et internationale foofu nañ toroxalee suñu camarade boobu di Amy Ndiaye Gniby di jigéenu Sénégal di jigéenu jàmbaar xeex ba doon maire ca dëkk ba mu ba mu nekk kon kooku dañ ko war a jox cëram comme ni ñu joxee jigéenu Sénégal yépp cër di wax ni nag lii raam ci ñag bi la jëm ndax tàmbaliwuloon fii assemblée nationale ba dañ fa doon taxaw ci kaw table bi damm table assemblée nationale mobilier ba nekk assemblée nationale yàgg na fa mosul damm bi fa ñenn ñi duggee la tàmbalee damm di wax ni démb suñu camarade pompier moo ko jëlee mun tëdd sur civière ëllëg mën naam corbillard dina fa génne bu lii dakku ndax li xew ci réew xew assemblée nationale mosuñu koo gis dañuy wax ministre de la justice di ko wax sénégalais yi nii Hercule ak Rambo amuñu seen place assemblée nationale lii jarul lever immunité parlementaire flagrant délit la ñépp a ko gis ñu taxaw def li ñu def wéq jigéen ba daanu ça veut dire que tu as pour toroxal ko kon ñu dañ leen a war a euh, punir mu punition bu tolloog li nga xamante ni mooy jëf ji ñu def kon ñun nous restons debout ni ko présidente aw waxee dinañu dem déposer di suñuy ay plainte collective yoo xamante ni ni képp kuy jigéenu Sénégal ñu ngi la ciy invité waaye dinañ dem gisi ji chef religieux yi ndax nag ay régulateurs sociaux nañu bu jàmm amee ci réew mi dinañ ci ñaan bu le safaan amee na ci réew mi dinañ ci ñaan dinañ ci dox li Amy Ndiaye ñii bi wax mais loolu la politologue yëpp wax moom la journaliste yépp wax moom la politicien yëpp wax kon nag ñun ñii di jigéenu alliance pour la république ñun moom nañu wax kon politique du daayira fanatique amu fi place fanatique amu fi place di daanu ay yësit di dóoraate mel ni da nekk ci daayira walla leneen te kooku tudd la tuddaanu la waxul lu teewul kon nag fii chaque jour ñu saaga fi président Macky Sall c'est la première institution du pays assemblée nationale mënoo faa xëy suba ba ngoon jot te déggoo lu ñaaw ñu koy wax président Macky Sall ak a mën a muñ ak a mën a baale ak a mën a nangu politique bi ñu dund da ngay muñ dañuy muñalante ndax ñun boobaak léegi ñu ne ñu ngi koy dégg bu doon. bu ñu déggee ñu xas président Macky Sall wala ñu saaga ko ñu dóoree kon ñun ay yàq nañuy nelawee suñu kër ndax chaque jour dégg ko ñi ngi jéggalu ñëpp suñu xol dafa fees tey nous prenons la parole parce que mouvement des femmes moo jóg ëllëg yeneen structure dinañ jóg dañoo jóg ci turu mouvement des femmes ci ndigalu présidente bi muy madame Ndeye Saly Diop nga xam ne nekk ñu tey moo tax gisu leen ko ci table bi waaye à distance ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di baalu ak wasalaam. merci beaucoup merci. ah kee mooy dem kay kee mooy ñëw.